kon mbokk yi euh, ñuy continuer waxtaan bi nga xam ne ni ñu ko doon amal léegi nii euh, fii ci euh, Daara Koki TV ak Dakar News Seneweb ak Touba Vision tey nag ñi ngi taxawaat léegi nii jamono ji may wax ak yéen nii al imaam Aliou Badara Ndao nekk koo xam ne kenn du ko naatable ci réew mi xam nañ ko ndax taxawaayam ci daara rawatina mu nekk ku jaar jaar fii ci Daara Koki xamee fi lépp loo xam ne xamee na ko fi avant muy dem di wutiwaat xam-xam ci feneen Euh, dañ koy euh, dalal bàyyi ko mu présenté bu ñu paree dugg ci waxtaan bi incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokki jullit yëpp fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ci réew mi di leen ñaanal jàmm fu ngeen mën a nekk di ko ñaanal at euh, gannaaw bi ñu ko nuyoo bu baax a baax dañ koy wax lan la gisee taxawaayu daaray Koki fii ci Sénégal jamono ji ñu toll nii. yéen yéew ñi alhamdulilahi rabbil alamin euh, li ñuy njëkk a mooy sant suñu borom subhanahu wa taala ndax ñun ñi fi jaaroon démb xamoon fa daara ji toll woon gis jéego yi nga xam ne defaat na ko gannaaw si gi dañuy xam ne lii moom loxol suñu borom rek la euh, li wér rek mooy liggéeyal suñu borom subhanahu wa taala damay faral di wax ne euh, sunu sëriñ Seex Ahmad Saxiir Lo borom da koo tànn def ko mu nekk way jur ci doomi jullit ñëpp way jur la ci doomi jullit ñëpp ñu fii nekk bokkoon na ci li ñu frappé woon lool mooy lii ma la wax suñ borom subhanahu wa taala tànnal bu mu ko tànnal doomi jullit ñi mu njabootoo leen ñoom it ñu nangoo nekk njabootam mu def ci ñoom nag liggéey boo xam ne tey ku fi ne cëpp ci daara ji loo fi mën a gis du la yéem ñu fi mën a gis rek du ñu yéem ndax xam gu ñu xamoon sëriñ beeg sellalam sëriñ góor góorgóorlum moo tax luñ fi gis rek xamal ne leneen lu lu ko raw ma ngay ñëw ci kanam incha allah daaray Koki nag daara la joo xam ne modèle la am na ko ko wax léegi ci ñi ma jiitu. ñu sëriñ bi yar bi mu doon yar yarub alquran yar ndaw ñi ci alquranul karim yar ndaw ñi ci sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yar ndaw ñi ci bëgg yàlla ak ab yonentam yar ndaw ñi ci bëgg képp ku bëgg yàlla ak ab yonentam sallallahu alayhi wa yar leen ci xam-xam yar leen ci jikko yar leen ci liggéey yàlla yàlla seddal fonte nga nekk euh, sëriñu daara xam daara nan lay doxe rawatina sax ngay topp li nga xam ne moom mooy àdduna bi fi mu toll jamono ji muy wàllum actualité yi ko gis nañ ne daara depuis des années dafa tàmbalee di dund ay jafe-jafe moo xam jafe-jafe yoo xam ne dafay jugee ci ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite réew mi wala dafa jafe dafa jugee ci ay ONG ana ban message ngay yónnee sëriñu daara yi jamono ji. waaw alhamdulilah rabbil alamin damay faral di wax ne jafe-jafe ay jafe-jafe la yuñ bokk ñun ñëpp kenn ku nekk am na ciw sas euh, way jur yi seen sas ñoom def nañ ca loo xam ne ña dul way jur ya defaguñ ko ndax jël nañ seeni doom ak lu condition yi difficile difficile ñu nangu leen a yóbbu ca daara ji xëy na nag way jur yëpp mënuñu amuñu kattan waaye ka mën a jël lu toll ni doomu aadama joxe amuñ sikki sàkk ne bu amoon alal yóbbu ko fa bu ko defee ñoom wàcc wàccoon nañoo ak euh, li ci des nag mooy société bi société bi euh, fil xaqiqa damay faral di wax ne dañ gën a bàyyiwaat xel ak yi ndax kat bu dee alal bu dee nombre muy nombre doomu aadama bi mu fi am li fi alquran am moom rek moo ko fi am am na benn plan développement local bu ñu doon exposé ca fan yële ca gannaaw ak weer yeeg at yi passé doon wax ne société bi organisation rek moo leen dese bëgg nañ alquran waaye force yi ñoo dispersé wu tey li alquran am ci njaboot mu dem ci ay 15 millions d'habitants bu fekkonte ne organiser nañ leen loolu nag maa ngi koy jëmee ci kilifa diine yi euh, ndax ñooy ñu nekk ci kanam al alquranul karim ñoom la yàlla sas alquranul karim sas leen daara yi maa ngi leen di ñaan ngir yàlla subhanahu wa taala ñu organiser njabootuk alquranul karim jëfandikoo institution yi ñu suñ borom jox bii di jàkka muy juma nga xam ne ajjuma ju jot ñu dajale njabootuk jullit ñëpp sos ay kees yoo xam ne pour daara yi rek la yalwaan mën na jeex jafe-jafe yëpp mën na jeex ndax 15 millions kenn ku nekk bu doon joxe ñaar fukki dërëm lu lay jox un milliard cinq cent millions par vendredi un cinq cent millions par vendredi mën na dañal jafe-jafe daara yi chaque semaine ko defee kon loolu maa ngi koy rappelé waat kalifa yi ñu yittiwoo ko def ci yitte ndax kat ku ne war naa sonn ba mu des nag ndongalal ko kuy yelloo teraanga moo ko gën a yelloo jërëjëf baax na jërëjëf jërëjëf yaakaar naa message bi yegg na comme ni ñu ko mën a waxee rek ñu ngi koy euh, jaajëfal bu baax a baax moom al imam euh, Alioune Badara Ndao nekk euh, sëriñu daara